voilà tey nag bu ñu ñëwee fii dañ fi fekk koo xamante ne nee naa kenn ko présenté dañ koy daal di bàyyi mu nuyoo euh, tey ban laay wax James laay wax wala nan. bu la neex bu man nee naa James bi. jël ma gën a mag naa <laughs> nuyu naa la di la bàyyi nga nuyoog ñi nga xam ne ñoo lay seetaan à travers Sénégal Buzz 221. salaamaaleykum yéen ñëpp gars yi seetaan Sénégal Buzz 221 maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm. man bi ma la ràññeewee dama la daan gis ngay euh, défilé nekk ci yenn affaires yi euh, da nga arrêté défilé bi wala nu mu demee noonu. non arrêté wu ma bi mais dama ko wàññi. voilà dama concentré wu plutôt sur le cinéma. mais ba léegi maa ngi défilé. waaw. ñu gis la ràññee la tamit ci benn série boo xamante ne Golden la année bii daal maanaam li la gën a fësal Golden bokk na ci. waaw Golden bokk na ci at bii li ma gën a fësal tax na tey. ñi ma naroon fàtte fàttaliku ma ñi ma xamul woon bu baax xam ma ñi ma xàmmee woon gën ma xàmmee <laughs> waaw. ñu gis nga def ci ron bu euh, am solo euh, saison 1 bi jàll day am saison 2 wala nu mu demee noonu. ah saison 2 bi de kenn waxuma ci dara kenn waxuma day am. te yaakaaruma ko. yaakaaruma de man saison 2 dinaa ko def. damaa xamul nag. waaw parce que mënuma bàyyi sénégalais yi ñoom ñëpp koo gis mu lay laaj saison 2 nga naan ko waaw. te yow dara leeru la ci donc man personnellement wóoruma te xaw ma kañ la xaw ma nu muy demee waaw. yaa ngi Marodi toujours di liggéey ak ñoom wala mën nañ la xaar ci yeneen projet waaw Marodi Golden laa sekkoon ak ñoom boîte de production boo xam ne la euh, dama liggéey ñoom ci benn projet pare projet bi euh, jeexal naa ak ñoom waaw man je suis un comédien bi nga xam ne euh, bokkuma ci benn. dëkkuma ci benn maison de production képp ku may liggéeyal ku ma présenté projet projet bi neex ma ma yëg ci sama bopp ma def ko ak yow jàll ci leneen waaw. Euh, tey jii mën nañ la xaax nga ñëw ci beneen facette ndax ñi ngi la xam rek ci ci ci golden beeg yooyu ndax nañ nañ la xaax ci beneen facette boo xamante ne macha allah comme lu reetaandu wala comédie wala leneen. waaw euh, ñi ma xam dëgg boo leen laajee li ma gën a mën ñu ne la comédie la gën a mën <laughs> mais nag yàlla dogalagul ma am rôle bu mel na et euh, am na tamit yeneen film yu ma def yu bëri am na yu yi jot am na yoo xam ne jotuñu ci am na yoo xam ne ñu nekk à l'extérieur ñoo ko jot ku nekk ak dëkk bi nga nekk nag dëkk yi ma tourné dafa bëri donc euh, facettes yooyu yëpp tamit ay facettes yu ute la et gisaguma wala yaakaaraguma wala dajeguma lu ma war mën a jouer du ma ne nag amul waaye dajaguma ak moom te yàlla ma dajag moom. <laughs> mais mais mais tey ni nga def baax na nii de say couleur daal ni nga def baax na. non élection Miss la. waaw man maay kii bi man maay tey maay maay maay <laughs> maay asamaan si. <laughs> waaw tey nii foosal ah? waaw nii man damay tooñ rek tooñ laa fi ah, ni nga def baax na daal waaw yooyu ni baax na. merci beaucoup kontaan merci à vous maa leen gën a kontaan. waaw kay ñu ngi taxaw ak nag xale bi nga xamante ne nee naa tubaarkalla dafa mën a way ma nga jóge ba Louga. tubaarkaala nañ ko ñaanal rek carrière bu sax dàq euh, maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm di la bàyyi nga nuyonteeg ñi lay seetaan à travers Sénégal Buzz 221. waaw mais maa ngi lay fay salaamaaleykum waa Sénégal 221 Sénégal Buzz 221 maa ngi leen di nuyu di leen ziar vraiment di kontaan vraiment ci interview bi merci beaucoup. Mm-hmm. waa loolu am na solo tey ñu ci final mi Sénégal bi euh, daal di la fa fekkaale sa teewaay ci bés bi. waaw mais déjà euh, je suis invité. voilà mu nekk en tout cas un grand honneur de vraiment participer ci occasion bi ci ci événement bi occasion la pour ñun en tout cas les jeunes talents ñu wane suñu bopp et vraiment di encourager en tout cas toutes les miss vraiment di leen encourager di leen wax ni que que le maire gagne macha allah. waaw yow Louga nga dëkk nag sa miss ngi fi xanaa moom ngay moom moom ngay supporter. waaw mais moom laay supporter déjà moom laay supporter et di ñaanal waa di ñaan waa Louga ñu ñaanal ko bu baax a baax a baax mm-hmm. suñu borom defal ko jàmm et puis may ko ndam ah di wax waa Louga nañ ko dañ ko tàllal loxo ñu ngi koy tàllal loxo en tout cas di ñun aussi ñu ngi tàllal loxo waa Louga yëpp di wax que ni ñu ñaanal ñu ay ndaw lañ rek yu doo door di jëm ah donc ñu ngi leen tàllal suñu loxo baax a baax baax. depuis combien de temps yaa ngi ci musique bi yaa ngi def musique. waaw je peux dire que maa ngi def musique depuis bas âge euh, yàgg na lool lool bi ma def bi ma def ba léegi mais ben voilà mën naa ni yaa de cela trois ans laa ci laa ci commencé dugg bi mu duggee yàggul mais en tout cas à euh, def en tout cas moom petit bonhomme de chemin déjà en passant def naa benn euh, def naa album en tout cas ak Papa Thione déjà un artiste de renom boo xam ne def nañ déjà le clip euh, va sortir ñëpp en tout cas ñu kar ko ñu ngi en tout cas def suñu petit bonhomme de chemin di ñaan waa Louga ak waa Sénégal yëpp ñu tàllal ñu loxo ñaanal ñu bu baax a baax a baax. à part li nga liggéey ak Thione Seck ñaata album nga def ñaata single nga defal sa bopp wala amagoo album. bah pour l'instant je n'ai pas encore d'album parce que voilà moyens yi déjà ak aussi bëgguma yàkkamti. je préfère def naa ko jël sama temps ba en tout cas nit ñi gën ma xam que ma mën a génne album mais euh, def naa ñetti single déjà j'annonce que ni incha allah rabi ci mois de euh, février bi incha allah rabi dinaa def benn single boo xam ne incha allah suivi en tout cas d'un clip vidéo incha allah rabi donc di wax ñëpp nañ ko xaar incha allah rabi. single li nga jot a way ci lu gàtt rek lan nga ci way. waaw am en fait voilà comme que man je suis sentimental donc man je pense que xam naa incha allah di nga gis léegi ci biir. benn bi ko la beneen bi aussi maa ngi woy sama xonni donc di di mbëggeel parce que àdduna pour man lépp mbëggeel la ah. lépp ci mbëggeel la commencé ci mbëggeel aussi lay terminé voilà c'est waaw ah, waaw loolu am na solo laal nga caam caam daa bëgg mbëggeel way nga wayam waaye euh, en tant que jeune artiste ma dégg la ci say wax nga ne da nga sentimental mhm. ak fi réew mi toll mhm. est-ce que soxlawuñ tamit en tant que jeune mhm. euh, soxla nañu ay thèmes yoo xamante ne day riche ngeen way métit métitu dëkk bi wala ngeen way yeneen ak yeneen lu bokkul ak mbëggeel ak ndax ku ñëw rek mbëggeel ngay indi tubaarkaal la dëgg la dëgg la waaw mais comme li ma ko waxee nga àdduna moom loo gis rek c'est-à-dire que mën naa ni mbëggeel c'est-à-dire que moo nekk ci commencement moo nekk ci fin tey mbëggeel moom mooy lépp ci àdduna déjà benn deuxième bi mooy li nga wax aussi dëgg la c'est vrai que ni war nañu war mën a way mais pour man c'est bien boo que ñu indi xëcc suñuy euh, public en tout cas ci mbëggeel xiirtal leen ci mbëggeel ba ñëw laa ñu mën leen a euh, wayal ay way yoo xam ne peut-être dina leen yedd dina leen mën a euh, gindi donc loolu moom mooy suñu suñu objectif en tout cas fan nga féete Louga wala Dakar. waaw je peux dire que je suis à Louga mais je viens euh, pratiquement tous les euh, très fréquemment en tout cas à Louga dama fi ñëw lu bëri bëri bëri bëri bëri donc voilà sama production yu bëri en tout cas fii laa koy defee donc mën naa ne damay jaabante diggante Louga ak euh, ak Dakar. voilà merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal. merci di la jaajëfal yéen aussi vraiment merci beaucoup ça fait plaisir. Ça va, bonjour, bonsoir tout le monde. C'est Hawa Kansi, Miss Saint-Louis, Nouvelle Vision 2019. Bon, taille honneur pour Maglamanekfi, parce que l'année passée j'étais là en tant que représentant de la région de Saint-Louis. Moi, je 14 Miss, donc compétir euh, Miss Sénégal. Ren Yalla m'a accompagnée sur Miss, elle est là et on est de tout cœur avec elle. Mhm. Donc je suis venue en tan que Miss Sambi 2019 et je suis venue en tant que coach aussi de la Miss. Tu uh-huh. Très optimiste. Merci beaucoup. Euh, soxna si maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci Sénégal Buzz 221. damay nga nuyoon teg ñi nga xam ne ñoo lay seetaan. ok salaamaaleykum. maa ngi nuyu ñëpp. yow yaay euh, deuxième dauphine Miss Dakar. exactement ñu bàyyi la nga présenté wu wax sa tur euh, daal di présenté wu ñi nga xamante ne ñoo lay seetaan. ok man maa ngi tudd Rokiatou Diaby et je suis la deuxième dauphine de Miss Dakar. Mm-hmm. et j'habite à Dakar. Mm-hmm. tey naka nga gisee Miss yi. Euh, Miss yi rafet nañ torop je pense que que la meilleure gagne daal. Mm-hmm. xanaa nag Dakar nga dëkk nag. région de Dakar nga bokk ak xanaa am na koo xamante entre nous du génn fii am na koo xamante moom nga bëgg mu gagné. non Miss yëpp supporté vraiment mais su ma sañoon puisque man dama participé woon pour que sama région gagné su ma sañoon sama région mooy gagné nag a dëgg yàlla. région mooy ban. Dakar. <laughs> Dakar daal nga bëgg mu gagné. Euh, je sais pas ku baax na mais man su ma sañoon couronne bi sama région lay des. <laughs> macha daal la bàyyi nga egg ci biir. merci beaucoup. nga xamante ne nee naa musique sénégalaise kenn di ko lim te boole woo ko ci Juufa Ñoxo Baay macha allah nee naa la moom su wayee xol yi day daal di féex su wayee sénégalais dañuy daal di kontaan ndax ñëpp a ko bëgg Pape maa ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci Sénégal Buzz 221. waaw maa ngi nuyu tutuwan Sénégal Buzz. <laughs> waaw Pape ñi nga def nii tey moom lan la. waaw mais ñi nga def daal baax na. yëfu taalibe rek xam nga ñun ay taalibe lañu donc euh, ñun moom euh, dañ ko simple rek quoi macha allah loolu am na solo tey nag ñu ñëw fekk si la fi nga xamante ne moo di élection Miss Sénégal. Mhm. nga def fi lu rëy macha allah daal di bëggal xol yi ci biir saal bi lu waral teewaay bi tey. waaw xam nga vraiment comme ni ma koy waxee rek mooy euh, bés du tuuti borom lay tollool te buñ ne Miss Sénégal euh, loolu événement annuel la si si réew mi ndax boo fàttalikoo bi ñuy nekk xale Miss Sénégal bu mësaan am événement bu mag la daan doon donc je pense que ni tey euh, vraiment. bu loolu amee sunu jigéen Aminata Badiane di jàmbaari fakk tëdd vraiment organiser ko sonn ci lool nag di di vraiment une battante donc moom la ñu war a féliciter et que ñu ñëw aussi accompagner ko donc biñ ma seetsee ma ne leen c'est avec un grand plaisir accompagner leen ci bés bi vraiment waay. Pape Diouf ci loo nekk li may waajal ñëpp xam nañ ko mooy le grand bégué. comme d'habitude donc euh, fii lañ ko dooree woon ci Grand Théâtre 2012. ñu ngi 2020 donc dañuy move dañuy dem dakaar Arena la nouvelle ville voilà yeah arena daal nga jëm macha allah tey jii nga jëm fi nga xamante ne moo di arena te arena nekkul lu nga xamante ne lu tuuti la hmm. waaw mais xam nga choix arena euh, xam nga comme que fête fête de l'indépendance la ñu wax mooy bés bi ñu moomee sunu bopp mhm. eh, je pense que foofu la ñu xaj mhm. et que fête de l'indépendance nag Sénégal gépp la du Ndakaaru rek loolu moo tax ñu jël ko yóbbu ko Dakar Arena pour vraiment sénégalais yëpp am ci accès ñëw ñu kontaan ak nag ay exclusivité yu bees ndax fii ba avril saa su ne rek dinañ leen jox lu bees incha allah. Mhm. incha allah euh, mu xaw a gàtt tuuti projet yi lan la ci lan ngay lan lañ la mën a xaar album bu bees wala single yu bees. la waajal projet yi yi moom vraiment bëri na. waaw mënuñu sax taxaw di ko lim. macha allah projet yi bëri na trop trop trop trop trop su ma ko limee rek sax dina am yu ma bàyyi. waaw donc chaque moment rek ya a des y a des vraiment vraiment. merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal. Tutu One in the house. <laughs>